caw moom li mu wax kenn du ci delloo li ma bëgg mooy wax ak conseil municipal bi Maser ñu inauguré affaire yi tey dès lundi ñu nekkoon fii te wàcce leen fi na leen fi delloowaat te kenn ku ci nekk nag nañ xam nag doo doo leen fi nekk gratuitement de weer wu dee da ngay am leen joxe te loolu ngeen joxe. ci la ñuy defar lii fii nii su amee faro bu toj ñu defaraat ko ci di ko def di ko bale ñoom seen maanaam seenu ñàkk di dugg ci keesu maire yi moom mooy tax ñu mën amaat yeneen yu mel nii yu baree baree bari donc ñi fi jóge woon ñoom la ñuy delluwaat fii fële tamit suñu demee bay defar fële tamit ñi nga xam ne yëkkati nañ leen suñu ko defee ba pare ña fa nekkoon lañ fay delluwaat beneen bi may wax mooy sama jigéen yii gis naa ne jaune bleu bii man maa wax Massaër képp kuy bëggandooy baan tey jigéen utal zone bu saf saf ak bleu bu saf saf nga ñëw ko ku wootee tee su ndoy baan wootee ngeen jam seen zone bleu bu saf saf mooy couleur mouvement Wallu je vous remercie jërëjëf euh, monsieur le maire léegi nag